clair d'un di bio naturel 100% yow mi bëgg bañ yu weex gaawal jël suñu produit bi di clair dent néna yomi la yow mi amé bañ yu kadam wala yow mi tux ba sa ay bañ cigarette néna la sa bañ lu mu xonq suñu produit bi di clair dent daf kay wéxal ba mu wéx tal yow mi sa ay bañ sir ñul kuku clair d'un mo ci mën yow mi sa ay bañ ragal lu sedd wala lu tang bo nané lu tang nan lu sedd sa ay bañ di metti bo jëlé suñu produit bi di clair dal di tàggoog mom yow mi amé amee signe muy nàcce wala mauvaise haleine nee la jëlal suñu produit bi di clair dent tagalé lak la day wéxal sa ay bañ ba mu weex bàyyi ci xet gu neex te nee naa la amul benn effet secondaire 100 pour cent bio naturel la clair daanak waa lambay distribution ñoo koy jaay fépp foo mën di nekk ci biir réew meeg bitim réew mën nañ la kaa jaay gaawal wootee ci suñu numéro bii di 78 762 81 88 li ci gën a neex mooy dañuy def vente en ligne toogal sa kër daal di def sa commande ñu andil la ko ba sa biir kër ci anam bu mucc ayib ah mbokk yi clair daa ngi noonu yow mi amee bañ yu kanam wala bañ yu cigarette bañ yu xonq wala bañ yu siir ñuul yow mi sa ay bañ ragal lu sedd wala lu tàng wala yow mi sam siñ di nàcc mbokk yi clair daan ak suñu client yépp yi ko utiliser ñoom ñépp ci am satisfaction à 100 pour cent ndax efficacité bi nekk ci suñu biir produit bi mbokk yi ak clair daan nee naa la sëy bañ day weex tàll mu bàyyi laa xet gum neex ange billah bisimilah inna wa niya laawa jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zaahiran baati nan kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nuyu nañ kilifa diine nuyu kilifa aada nuyu njabootu làmb yëpp dina dem ba ci hôpitaux yi dañu fa tëdd yàlla yàlla fëgg seen bopp duñ fàtte tam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi di leen ñaanal bu baax a baax baax ñoom ñoom ñu génn fa te leen fa dugaloon ñu bañ cee delluwaat di ñaanal tam bu baax ñi nga xamante ne dañoo génn àddina di leen wax yàlla leen yàlla yërëm te xari leen àjjana di ñaanal ñëpp jàmm di baal ñëpp àq te di baaluwaat ñëpp àq ci weeru koor wi nga xamante ci lañ nekk nii weeru yërmande la weeru ngëneel la di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu koor ak bépp mboolim julit nangul ko kooram tey nag ñu ngi fi nga xamante ne mooy jaxaay jaxaay nag soo ko tuddee doo fi tudd nga xamante ne mooy champion bu mag bi ki nga xamante ne mooy vite fait ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar bu baax a baax a baax di nuyu Baye Mass bu baax sama caméraman bi nee naa la moom mooy le jeune caméraman du peuple waaye nag dinañ nuyu xaritam bi nga xamante ne moom lañu fekk muy Pape Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar bu baax a baax a baax a baax dañuy jox vite fait mu nuyoo ñu tàmbali li nga xamante ne mooy waxtaan bi vite fait nuyu naa la. Modou ñu ngi lay fay di wax onge bi la bisimilah inna waa ni yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Serafal ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ko yonent bi di sant sumay ñaari waajur di sumay waajuru ndigg di sant sama waajur ruus suñu Abdou Lahad Mbacke borom di sant waa jaxaay yëpp jaxaay mooy jaxaay de cité zone numéro 12 B di sant samay mbokk yëpp képp kuy bawal bawal maa ngi lay sant bu baax a baax a baax aussi di ñaanal sama papa fee mu tëdd hôpital yàlla fëgg boppam may ko tan ak jàmm ak ñëpp ñu mu fa fekk suñu borom may leen tan ñu jóg delluwaat seen i njaboot. ay ci ginnaaw bi vite fait nuyoo pare vite fait dugg rek li nga xamante ne mooy koor ak mbër mbër yi am ñoo xamante ne duñu woor am ñoo xam dinañ woor vite fait nan ngay kooree. wa koor koor moom xam nga yàllaa ko digle hmm. te ñun aussi ay jullit lañ te jullit moom da ngay def yëfi jullit waaw donte bari na des fois ñu def ay rëq-rëq ak yooyu mais koor occasion la boo xam ne nii maam chaque jour ñoo war a jaamu yàlla mais koor occasion la boo xam ne dañ see war a gën a mën a jaamu yàlla waaw te yàggul weer kese la hmm. dañuy woor woor bu baax hmm. comme ni ko ñëpp defee di julli di ñaan yàlla lépp loo xam ne loolu la suñu borom santaane si koor ñun dañ koy def dañ ko bu mo bu ñu woré sax yu bari dañ ko duñ ko bëgg def genn yu bari sax duñ ko bëgg di def parce que bëgguñu du gis lo xamné ni day wañu suñ ko war wala dara ñi ngi wor comme ni ko ñepp di woré di ñaan yalla ma ngi xalu ah, lool non man non damay wor wax deug yalla man non damay wor lepp lo xamné suñ borom digle nako diko santané té mo mën ko ci carton yalla duma xaar kenn naan ma def ko wala ni ak yi mm-hmm. yooyu dañ ko wara jël tek ne ay mbeur du wor ak ay lu bax ñepp ko bëgg di amul mbër amul dara waaw dañuy woor. Hmm. vite fait nga jóge sa combat nga xamante ne yaa ak baar Barre ma ñëw fii ñu def émission nga dema matu man fi mu ne nii làmb ji benn séance dong laa ci def te boo xefee dama koy dóor mu daanu loo gëmoon la wala loo entraîné woon la wala dafa tombe waaw suñu boroom rek ndimbali suñu borom des fois da wax dara sax kenn xamul ba xam di nga dinañ wàcc fii ñu ne nii sax suuf nañu wàccam déet des fois da ngay wax dara suñu borom dimbali la loolu suñu borom la. Hmm. yàlla moo ma may ma wax ko mu tombeek aminu suñu borom suñu borom def ko mais li ma wax si Kanda ay benn séance boobu wax dëgg yàlla làmb ji benn séance laa doon def parce que dama blessé woon blessé bu métti dëgg dëgg rek moo neex yàlla te damaa dara jarul ma fen dama blessé woon blessé bu métti dama blessé woon si tànk blessé si épaule contact yi sax li ma contact matul trois jours aussi entraînement bi tamit demewul noonu waaw ba pare nekkoon si ay kii quoi mais san non médical mënuma duggal dugal médical parce que man xalé la té lamb la bëgg mom la yaakar waaw té borom jom la ba pare aussi dañ ma doon jappalé sama combat dab daan yàqu ñi ma doon jappalé ñepp ñepp tay bu amaatul combat mu dem ba une semaine ngeen lamb ji yàqu na ñu bëri dañuy décourager loolu la doon sour mo dal bima blessé mënuma récré reculer mënu ma ñun ay garmi lañ bawal bawal ay bawal bawal lañ aussi waaw moy lolu quoi. mais ñu ñew ci biir combat bi ñu gis. sa adversaire jiitu la ci làmb ji. jiitu la fi nga xamante ne mooy stade. nga ñëw vite fait ñëw léseral combat bi ba ñi nga xamante ne am na ci yoo xamante ne say supporter ak say mbokk xawoon tuuti tuuti ci combat bi waaye vite fait soofantal combat bi daal lan la woon vite fait. non lu soofantal xañ na mooy loolu rek mbirum suñ borom la rek yàlla moo waxoon noonu lay demee rek mooy loolu sama adversaire mënuma ma ko dama koy ñaanal jàmm dañ doon xeex suñ borom def ma dóor ko mu daanu. amaana tay mom mënon na maa ma daanu parce que dama doon ma doon hmm. ma koy borom dogal ma dóor ko mu daan dama koy sante yalla du sama mën-mën du sama dara waaw ah, ndimbalu suñ borom la rek suñ borom moma dimbali waaw mo na ma xañ moom mën na ma dóor ma daanu te boba dina ñaaw dina demee neneen mais hmm. suñ borom moma dimbali suñ dimbalu yalla rek la ko dóoree mu daanu. Hmm. Mhm. ci ñu jóge ci sa combat gaay di ko wax vite fait prince vite fait prince vite fait prince vite fait prince lan la sa prince ding ko wax tay lan la. non làmb rek xam nga amateurs yi moom tamit seen xaalis lañ yor dañuy ñëw stade xam nañ li neex xam nañ li jaadu tey su ma bëree woon vingt combats presque bëree deux combats bu fekkee làmb ju jaadu la bu neex sax amateurs yi teewul dañ koy wax mais amateurs liñ bëgg tamit nekkul liñ bëgg rek dafa war a taxaw wala liñ bëgg moom mooy taxaw mm-hmm. mais ñoom ay amateurs lañ te dañuy suivre làmb mm-hmm. dañuy xam làmb yi nga xam ne mooy làmb yu neex te man su ma bëree woon trente combats presque bëree deux combats. parce que ñom dañuy xol ci ay capacité mbeur lañuy xol ak defa xam nga nit ñi ay nit lamb lañ. Mhm. amateur yi mom xam nañ ñepp xam nañ lamb bu del li jaadu na dañ nan le lamb ji dafa jaadu mais waxuñu làmb ji ñom day taxaw mais bu jaado ñom dañ nan lamb ji jaadu na comme man ni koy waxe mak press diko waxe mak mag keneen ak keneen loolu mënu mako bañ te ñun amateur lañ fi nekkal tay bu ñu seeti woon li doon laaj ci lo may lamb ji ñu jox ñuko dañuy jël ko bëre ak mom parce que ñun ay xal lañ lamb lañ fi nekkal dañuy bëre bañ ñu ben adversaire képp ko xam lamb jaadu na man ak yow ñu bëre def ma fi dara duma ma benn mbër waaw mais képp ku ñu seeti suñu borom dogal ñu war a bëre te làmb gi neex amateur yi bëgg ko si kàttanu suñu borom dañ koy jël bëre ak yow. non du question daw xam nga làmb liggéey la promoteur yi ñoom ni ñuy liggéeyee xool gis lu neex di ko taxawal ñun bëri noonu la ñuy liggéey parce que làmb dafa metti mm-hmm. liñ lay fay da ngay gëlaat ay duubul duubul duubul duubul di ko defaat si làmb waxuma la dara mais open press rek da nga fere xaalis bu weex tàll comme tay lepp luñ lay fay té amna lamb yo xamné lepp luñ lépp say fay da nga jël defaat ko ci mo tax amna lamb yo xamné bokoy ne da nga wara laaj li nga xamné ni bo calculer sa bilan parce que ñom ay staff. waaw staff dañoo ay staff ku ci melni khadim Kanji di sante bu baaxa baax diko gëreum bu baax waaw ay ñoom fay méta xam nga gaa yëpp paab ak ñëpp ñi taxaw xol buñ jàngatee lamb yi xamné li buñ ko jëlé ci li ñu ñuy wax ñu ay gàllankoor wala ñi indi jafé jafé duñ ko jël. mais nee staff dañoo ñemewul Franc prince. non du question ay ñeme sax xale bi dafa mystique mystique bi ngeen duñ mystique ñun moom wax dëgg yàlla suñu borom la ñuy ñaan moom wax dëgg gannaaw bu ñu defee lépp lu ñu war a def parce que làmb nag dafa am ay réalité parce que burul dara sax ni boo ñu staff bi li fi ñëwul mel ay. centaine de personnes la xool xam nga mënoo ñàkk bañ a gàllaaju mais dara ngeen bi ñun dañoo gëm ne yàlla moo ñu mën a may. gëm na yalla moo ñu mën xañ man esprit bobu lay doxé ci lamb mo tax suma calcul nak yoy sax du bëri. mais japp nga ni bis bis dina ñëw combat bi taxaw su waré taxaw dina taxaw. waaw bu waré taxaw dina taxaw inshallah mm. ay xalé lañ yag yag mëna taxaw yi. Mm. mi ngi ci yoonam mang sama yoon diko ñaanal yalla dara bañ ko am ben ndok-ndok manit aussi nonu nga xamne bu ñu dajé ci kaw day nekk lu neex comme niko Malaw siras waxé nekk xaaliss bo xamne xaaliss bari lay doon <laughs> parce que mérito nañ ko quoi parce que lamb bo xolé ñun génération bu mujj bi ñoo gëna bëgg lamb ñoo gëna fonk lamb parce que ñu li ñi def ci lamb sax au moins ñu dëkk ñi daaw ñu koon def moo tax tey ñooñu boo fa fayoon ben 1 million dinañ mëna a génne benn somme teg ne mais ñun tay fek bëre ñu dem bay bëre ay 20 million mënu ñoo denc dara wala dem bay bëre 10 million wala nga am staff bu baax bu lay dimbali am ñu la xam ne dañ leen yéene seen xaalis rek yalla rek tax waaw di la ko defal mooy tax nga mën a am ay ay kii mais sant yàlla bu baax lu jot yomb jëlaat nañ lépp teg ko loxo suñu borom xañ na lu nar a neex rek incha allah nii lay demee quoi. nee neex nii lay demee mais dañ ne ba nga jógee sa diggante nga xamante ne mooy Cheikh Barre ñu ne da waroon am combat jànq lu waral sa digganteeg dab daan ba tey mënta jeex. contrat moo des ba fi mu ne nii jóge na ci promoteur euh, bi nga xamante ne mooy Baamu Milano fi mu ne nii waa Jander production ñoo ko tëgg. non contrat contrat amul foofu parce que Milano laa waroon a bë laa waroon a bëreel mu joxoon ma avance. amatul amatul dat dab daan gaañu na làmb ji yàqu na Mor Diouf bëgg sama komba maag Cheikh baari mooy bi ma bëree mu mhm. wax milaanoo Milano bi ma tëggoon ma ne ko Milano yaa ma tëggoon te làmb ji am na ay jafe-jafe te làmb ji dab daan dama ci def xaalis bu bëri mhm. mu ne ma duma la bàyyi nga dem wala booy bëreel keneen danga may fay sama xaalis mhm. man it ma am ngor parce que ñun ay doomi góor lañ ko ay góor lañ. bima ko waxe ma jël avance be ngir bëgg bëre rek ak bëre bëgg giñ bëgg bëgg mënu mënuñoo tok suñu morom di ñu ñuy tok te bëre ñu ma jël avance bima ki kii biñ ma jox ci Cheikh bari yëkëti ko fayé ko Milano tok mo tax sax lamb ji lolu xawna feñ kon pour mu leer ci bop amateur yi manam Milano fay ko xaalisam. ba avant ma amé lu mako deureum avant ma bëre Cheikh bari dama ko fay xaalisam ba ba mat sëkk. kon ñii naan Milano moo jaay combat bi. non non jaay Milano avant maa bëri dama ko fay xaalisam ba mat sëkk. deseelu ma ko fiki dërëm. Mhm. dana ma fiki dërëm bu si manqué du ma ko jël ma ne dese ma am ngor deseelu ma ko fiki dërëm jox ko xaalisam ba mat. Mhm. ma bëri suñu borom may ma ndam waa Jandeer bëgg sama combat ma ak dab daan ma yéen seeti leen ko côté boobu nag loolu lu bari mënu ma ko see wax parce que fekke ma ko mais daal xam naa seet nañ ko teg combat bi taxaw na. ay sant yàlla rek <laughs> bàyyi laaxatu fay. <laughs> million kay fay ñu dara. ñu sant yàlla ah, waaw nañ sant yàlla rek. affaire mi kanam quoi sant rek. Mhm. mais ngeen jëm ci bis. Mhm. Mhm. leen dañuy gaaw. waaw comme ni doon waajalee yeneen combat yi rek waaj ànd suñuy mbokk suñu am di jàmm lépp def li doon def lépp bu yokkuwul sax li daan def ñu jéem ko fexe ni ko yokkee ñu daan def benn ñu fexe koo def ñaar. parce que làmb ji passé ni ni mu demee bëggeewu ma ko noonu. donte daan naa sax mais li ma bëggoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg demeewul noonu parce que xale laa te dañ maa sas mën naa ñëw indi état boo xam su ma ñëwee amateur yëpp dañuy kontaan mais xëy na jaam ak bi xam yàlla ak dogalam dama ci amoon ay blessures yu métti ba mu naru moon a bëre. waaw mais tax comme làmb ji lañ ko bëgg a parce que nit ki mënoo di daan daan rek gisoo say faay des fois da ngay daan sax yow xam nga am nga faay suñ borom moo a dimbali mais mën ngaa ñàkk. waaw incha Allah rabi si kàttanu suñu borom. waaw di ko ñaanal di ñaanal sama bopp bis ba allah. waaw moom day ñëw ndax mu wàccoog yow ndax yow dina wax ne loo koy yabee ba nga dem jëli jëlib Cheikh Bara jóge fa jëlaat ko moom. non dama koy ñaanal rek allah ñaanal sama bopp jàmm ñu bëre ko si jàmm mu jeex si jàmm képp koo xam suñu borom may na la ndam nga dem ànd feete feete ko say mbokk quoi. barke Serigne Touba billahi wallahi limay may man da li may bëre amagul lenn lo xam dama koy bëre te bëre naa ko arène hmm sama for maag li gëna mën li ma gën mën defaguma ko moko ci arène quoi. kon mën nañu xaar ci dab naa nga may ñu tuti waaw mën na nek parce que tolo na njoolaay. Eh. te bu jappé ma japp dina neex quoi. ci bobu la fa ci arène nationale. Mhm. yalla bax na quoi. hmm mais dañuy ñëw ci li nga xamantene fim fi mu nekk nii moo nek xaw a actualité. nit ñi di ko waxtaanee muy Mama Lamine numéro 2 Mama Lamine numéro 1 nga xamante ne fan yii yëpp dafa génn def benn sortie ni yaayam dafa wàññeeku te avant yaayam di wàññeeku j'espère que déglu nga kii bi waa léegi yow lan ngay wax ci loolu ak lan ngay wax ci axlu làmb. Mm-hmm. ah Mama wax dëgg yàlla waxuma la axlu làmb sax mm-hmm. parce que nit bu dee jullit rek mm-hmm. yow ngay jullit tey bu amee ay jafe-jafe wala moom ay tolof tolof danga ko war a taxaw ci côté bépp. te xaw ko ba xam ne yow mii taxaw nga ko waxantuma laa nag ngeen bokk li ngeen def. bu mm. nekk ak nekk si làmb comme jot na làmb jóg ñun ñëpp jóg jàppale ko te yàlla rek tax te bañ cee seet dara bañ cee seet succès bañ see seet tour bañ see seet dara. Mm-hmm. te jàppale ko rek te yàlla tax parce que boo ko defee nit ku sonn nga jàppale ko loolu rek tiyaabo ju mag la quoi. waaw non du bàyyi gars yi nañ ko jàppale taxaw ko. na ko ñëpp jàppale ak lu làmb yëpp jàppale ko taxaw ko parce que Mama Lamine jambar la gaynde la quoi mais lim wax non tamit deug la des fois nit ki nga tollu situation yo xam ni yo billahi wallahi wallaay taay da ngay da ngay warul góor sax yenn yi bàyyi day metti motax barna mbeur yo mbër yoo xam ne dañ gis ñoo nday diw da agresser wala dara day metti ci côté bépp lay mi ci ñun ñëpp lay metté ñun ñëpp mbeur yi ñëpp lay metté mais yow yaay am sa ngoru bop parce que ngor mom yombul mais nit da ngay jema a waaw gore parce que làmb mom amul fenn fo xamé ni des fois day dem ba bay mato billahi maamala mi li muy dund dañ ko xam de limi dund li wax lépp dëgg la li wax lépp lépp lépp dëgg la parce que ñun ay mburu ndaw lañ mais loolu dañ koy dund des fois day dem ba lañuy metti ngay gis situation ngay gis lo xamé ne da koy mëna fajj wara fajj a ko fajj muy metti bam mu jaral la ngay def yenn yi wala ngay wax yenn yi wo ay nit ñoo xam ni yow amana sax bu lu nak lamb do taxaw sax ba leen ñaan leen jox dara wala moy waaw mais di ko sant yàlla rek di ko ñaanal tamit tolof tolof yi mu am mu dañ ak jàmm ba mu ñëwaat si làmb xam nga ndax moom si làmb la bokk waaw di ko ñaanal bu baax di wax ñëpp nañ jug taxaw ko jàppale ko. Mhm. waaw li may tëj tëjee di ko tàggatoo mooy di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di wax élection yi ñu jëm ñëpp nañ dem def ko ci njekk def ko ci yar. waaw suba ci heure bi lépp leer. waaw lépp leer ñu def ko ci yar def ko ci teggin mm. xam ne. élection manam mën na ciowli li mën na bëri ku ne jàppal bàyyil kii laa far ki la far mais nguur mom suñ borom mokoy koy joxe mm. waaw ku ne mën nga wax di way gañe di way gañe mais ngeen décision bi yalla la yalla rek mo mën fal ki doon président du nit moko ko fal bu ñepp andon ak yow sax suñ borom ànduwul mën nga bañ nek président mm-hmm. comme nañ délo suñu xel ci yalla mm-hmm. xam fi lepp lu fi way mën suñ borom la nguur day jeex leneen leneen day jeex mm-hmm. képp daal ki nga xam ne suñu borom da la fiy teg yàlla na fi teg ko xamné ni mën na yor réew mi geril askan bi geril jeunesse bi ñun ñep ñu gis suñ bopp mu yor ko ci yar yor ko ci teggine parce que ki fiy ñëw tamit bu yorul bu ki fiy ñëw tamit bu nekké président bu baax la mën na yor réew mi te population bi ñun sénégalais yaru ñu tamit day metti parce que ñun tamit fa ñu xoolaat suñ togaay yar suñ bopp bu baaxa baaxa baaxa baax parce que président tamit nit ñi ñi ngi wax ay président yi lefu fi di nangam sangam mais yombul lu toll nit àdduna Sénégal ak ni mu toll nga jiite ko waaw kooku lépp mënta matee mais nit ñi nag ñoo war a am compréhension des fois di comprendre di ñuy waxee tamit ñu koy xool parce que nit même bu deful li mu war te kilifa la moom la fi yàlla teg ngay jël ay kàddu yu rafet di ko teg si deram man moom wax dëgg yàlla askan bi laa ku fu ku kuñ fal rek baax na waaw dinaa woote nag bu subaa ki ma war a wooteel dinaa ko footeel mais nañ jël yëpp teg ko ci yar ak jox rek mooy loolu ñu xam ne loolu la yàlla dogal quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. di sant waa jaxaay mm-hmm. ku si mel ni xaadim kànji kooku sama grand frère la sama mag la sama lépp la aw ma fayam dama koy sant bu baax a baax ay sonn si man moo ma fayal sàll ak yeneen ak yeneen koor gi tamit bi mu teroog yëpp yu bëri yoo xam ne mënu ma wax waaw di ko sant bu baax a baax a baax xaadim kanji aw ma sa fay maa lay sant bu baax bu baax a baax a baax a baax a baax moom day def te yàlla rek tax waaw ñu bëggante maag moom mu bëgg moo bëgg ko waaw loolu rek dafa am solo ay jullit dañoo war di bëggante comme xaalim kanji maa ngi koy sant bu baax méta soc sama doomu yaay maa ngi koy sant bu baax a baax a baax kooku lu ma ko sant dama koy xeeb booy booy may àndal a ma seen fay su ma may combat ñoom ñëpp dañuy cotiser vingt mille vingt mille jox ma ay njuufa pa bulet xam nga pa moor gaa yëpp vite fait de bu réew mi suma booy bi réew bi dem doon dóor benn xale mën na ko bàyyi ko moo ne du ko bàyyi <laughs> dafa réew ko waa booy bi <laughs> waaw di sant waa jaxaay gépp jaxaay 1 jaxaay 2 cité gendarmerie 12 b xam nga Kër Massar Tivaouane Peulh Alaaji Paate Mor Gueye borom États-Unis di ko sant bu baax Lamine Genn di ko sant bu baax Double Dof di ko sant bu baax di sant waa Bawol bépp bépp bépp képp kuy Bawol Bawol maa ngi lay sant bu baax a baax waa ASC jàmm aw ma seen fay waa Mexey waa Lambaay di leen sant bu baax samay mag samay doomu baay samay doomu nday ma ken sama yaay ak samay bayu ma ken ma ngi sant ñep di ñaanal sama papa suñ borom fëgg papa mu am tan ak jàmm waaw parce que mom wajur la bo xamé ni ñun amuñu fayam wax deug yalla mom mom moy lolu quoi wa ñëpp la njaboté wa sama yaay tamit diko ñaanal wër suñ borom gëna guddal fanam parce que wax ji mëna bëri mais tamit yaay ak bàyyi dal du dara mhm. wa ñun bañuy gëna nek xalé fi suñ kër fi sama yaay ma ko doon di ko minaasal di ko raxas duus maag sama benn rakk bu tukki Mourou Ndiaye mooy ay ñaari fan ma ay ñaari fan barke Seydina Mohamed boobu sama boobu sama rakk bu jigéen bi xale la bu ayee ñaari fan ma ayee ñaari fan ma ayee raxas duus minaas ñaari fan mu ayee raxas duus minaas ñaari fan barke Seydina Mohamed moo tax des fois damay dem ba damay sonn ba ne dugg si dara ne lii duma ma si génn mm-hmm. mais damay gis affaire ni muy ni muy kiyee nga xam ne lii daal du hasard quoi mm-hmm. barke Serigne Touba wax di sant yalla bu baax di sant sama yaay tamit bu baax a baax a baax aw fayam diko santat bu baax a baax baax baax suñuy wa keur sumay dom baay sumay dom nday may sant di la sant tamit yow dérangement bi nga ñew xam nga mooy di sant tamit Baye Mass sa cameraman bi waaw di wax <laughs> ya, di wax clair dans pour bu baax si bañ la Lambaye frère mo koy distribuer gis leen sama bañ yi day weex tal waaw ku koy jaay ah ku koy jaay ya koy jaay na ko ñëpp dem wëri clair na poudre bu baax la waaw ku ko bëgg na woote 76 545 56 15 poudre bu baax si bëñ la waaw na ko ñëpp dem wëri poudre bu baax la mhm, di santaat ñëpp mhm. mhm. ayca moo ko wax dégg ngeen lu mu wax nee na li nga xamante ne mooy clair na maanaam boo tuxee ba say bëñ yàqu boo ñëwee dina ko defar maanaam day weexal bëñ daal clair na day weexal bëñ nee na wala kadam vite fait comme moom nee na daw na res maa koy jaay maa koy jaay dégg ngeen maa koy jaay acca di sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaat waa jaxaay bu baax a baax a baax di sant Baye Mass sama caméraman bi nee naa le jeune caméraman du peuple lu mu camérawul baaxul kenn du moom Fallou Tall internet yi nee nañ namm nañ la gën nañoo gis sa kanam nee na émission yi kañ nga koy dooraat namm nañ la lool lool lool lool yéen woon seen site internet bi nga xamante ne mooy Tekki ma TV nee naa leen lépp la ñuy def lépp lépp Baye Mass na leen tugalal numéro téléphone après muy daw Baye Mass nag numéro téléphone bi dee ko dugal gars yi ñu ngi koy laaj. dee ko dugal muy daw waa. <laughs> vite fait dafa lakkale heure bu defee émission maa moom nii lay demee sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp makan yaa ngi seetu doy nga waar jërëjëf ay ca gërëm nañ ñëpp jërë ngeen jëf